xarabal ci ab loi d'amnistie mais boo xam ne seen loxo la jëmee waa assemblée loi amnistie mhm. même bu fekkente ne président def na ko xam nga dafa am ay fait yoo xam ne président mun na ko toucher baal nit ki mhm. mais dafa am fait yoo xam ne même bu ko même bu la ko président baalee sénégalais yi duñ la ko baal ñi nga ko def duñ la ko baal parce que yàkkal nga réew mi yàkkal yàkk nga image réew mi te loolu du président Macky Sall nga ko def maanaam yow dañ ko voté malgré vous bon xam nga man xamu groupe nga bokk man dama bokk ci groupe lu lu ñuy président jox dañ koy saytu ci suñu biiru group mais dama indépendant daa mel ne àndoo ci dama non dafa am loo xam ne man loolu duma ci d'accord mooy am na loo xam ne nit bu ko defee d'accord naa ñu jéggal ko mhm. parce que suñu borom sax ñun dañ koy tooñ mu ñuy jéggal c'est vrai président war na mën a jéggal ñépp mais am na ñoo xam ne même bu ñu leen jéggalee sénégalais yi duñ leen fàtt